Assalamualaikum mbokki téléspectateurs yi kita téléspectatrices yi seen doom seen xarit seen rakk seen sët Assane Leye historien enseignant TV andu kok kan kenn ci man muy Mamadou Ndiaye ñu ah di waxtaan ci cosaanu réew mi ak li xew-xew yi ak nit ñi li ñu bokkee ca Sénégal bu njëkk ga lañ ci xam rek ngir bégal askan wi war na Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te jàmm rek lañ ko sa xam ak jot ak fulla ak fayda ci noonu nag ci la ñuy nuyoo doomi Bambey yëpp di ñu seetaan waaye di nuyu doomi Diourbel yi ñuy seetaan yëpp. waaye di nuyu doomi Sénégal yi ñuy seetaan yëpp ñu nekk Sénégal ñu nekk ci diaspora bi ak fu ci waay nekk rek ñu ngi jël suñu loxo di la ko jox di la wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah di wax ne émission bi nag li tax mu jóg histoire ndax dañ ne histoire day doxalam réew la culture est le socle du développement la culture est le socle du développement parce que ah ku xamut sa bopp danga réer waaye ku xam fi nga bokk doo réer ndax ku xam fi nga bokk di nga xam ni ngay moytu xam ni ngay jomb xam ni nga war a jëf loolu moo waral tey jii ah dégg nga maam ñu ñëw fii tey ci télé bi dégg nga am télé bii nga xam ne Bambey jépp ak Sénégal gépp ñu ngi koy seetaan muy Bambey TV ngir fa yéene leen fee waxtaanal ni réew mi tëdde woon démb ni réew mi tëdde woon nan la booba Sénégal indépendance amagut carte électeur amut carte d'identité amut ay royaume a fi nekkoon royaume yi nan la demee woon waalo fuuta kajoor bawal jolof siin saalum ak bundu ak Casamance juróom-ñaari réew yooyu ñoo seqoon Sénégal ba ñu demee ba Sénégal am indépendance it loolee la ñu continuer def ko ay raison raison yi dox ba jur département département yi dox ba jur arrondissement arrondissement yi jur commune ak i communauté rurale loolu mooy suñu réew mi nga xam ne moo de Sénégal di benn bopp kenn mënu koo xar ñaar man nag ñu ngi ci réew mi tudd Bawol duñu ko waxee xel daa dem ci lu bëri ndax Bawol mi ngi situé woon tey ji ci kàddu bàlloo ji ginnaaw juma yi seigne Bàmba ja foofa la frontière won ak Jolof dem ba Bàkku Njéeme gi ci Siin mu dok fa ak Siin dem ba Jëba ci ndok mu dok fa digganteem ak Saalum dem ba Ngay Siin ak Ngay mbalo dem ba gal kon nga Bawal yaat won na Bawal fu doon capital bi momadou ndjay moy lambay lambay nga xam teñ buñu fal ko dalé ci Amari ngono acciteeñ tanoorob goñ ngoy caaro coro biram faat lu ni sàmm tondeer bi ngir làmbaay da ngay ñëw rek ñu sang la ci ngayal xoyu xoyu li yóbbu la kàddu palukaay wéeru gën sumpas ngañ njàngum laay-laay tund njale géwéli ndogaan yi eh, ndogaan wax ak yow géwéli bëkk nii gi wooy la nga doon teeñ bu ñu reconnaître nga tànt ndomba yoo xam ne tey jii dégg nga maam buur am na ko ci réew mi waaye amoon nañu baat boo xam ne dañu waxee kenn du ko wedde tey te mel amoon na kumbul teeñ amoon na ko làmbaay loolu mooy réew mi nga xam ne moo di réewam bawal baa mbay na nekk ci centre ndax tey du bawal capital bi mi ngi nekk ci ban département mooy làmbaay mi ngi nekk ci ah département Bambey Bambey di dëkk boo xam ne dëkk bu yàgg la bu am nit ñu baax ñu fi jaar dafi jaloore marqué Sénégal ba tey ji kenn mënatul to bind réew mi te boolewu leen ci kon nag suñu dëkk réew dëkk bii dëkk la boo xam ne ah am nañu succès ndax am nañu potentiel boo xam ne bu ñu amul pétrole amuñu gaz amuñu or am ñu nit ñu am voleur yoo xam ne juddoo nañ ci dëkk bi jëf nañ ci dëkk bi wax nañ ci dëkk bi loo xam ne nii tey jii kuñ ko nett la nga kontaan kon na Mamadou ñu déglu xalam ba ci kanam. waaw Mamadou dee nga xalam googu alaaji aman njaay sàmm di woy di ko xalam muy jàngaake kan la ko woy fii ñu toog tey soriwut këram dara yàlla su sedd ci kawam tey ma nga yoof muy kura faal um biti loxo seen ak ndongo maali kumba ndongo maali kumba bàyyam ak Ablaye Malikumba ak Samba Yobba Malikumba Amari Awa leen jur ak Malikumba Kayre kooku mooy Koura Fallam Père Senghor kooku bàyyi maam Kayre magistrat bi ak ñilaana seega xam naa dañu duggee ci kanam ci garmi yi bay wone lien de yi daañu yëg si foofu ma loon di leen waxal ne leen bawal mi ngi wax ne mi ngi jóge ci baawal ma ñenn ñi loolu la ñu wax ñu ne am na ñoo xam ne dañoo yoroon seen goj ak seen baag ñëw di rot ci teen bi ñi ci des amuñu nu ñu mën a def ñu daldi di ne ah ñun de xamuñu nu ñu def waaye baawal leen ñu du leen ñu baawalee rek danañu mën a root loolu moo indi turu bawal ci ñenn ñi ñi ci des nee nañu. lan mo andi turu bawal moy du lingeer masana falu domam nek teñ lambay wala càmmeñam dañuy bu yobbu ko ciep dañu ko yobbo ciep ñu kol ko togal ko cere kol di def sepp mi ci bir ndox mi ko naan mahmu neex ñu ne lingeer bi bayina na wol tey dootul wolati ñenn ñi nee nañ turu bawal ah ñoo nga gis eh, mbokk yi ci internet bi di nuyu Mamadou Sarr ñu ngi wax na jërëjëf macha allah suñu jarbaat boobu ah di nuyu Lorenzo Mamadou Lorenzo mii nga gis Italie la dëkk waaye dafa def boppam Sénégal yi bëgg cosaan di ko topp di ko gëstu di wax ci Sénégal loo xam ne ñun ñii fi dëkk sax xaj na xamuñu ko fii wala duñ ko fi xamee it defee ñu ko niñ ko war a defee kooku mooy Lorenzo mii di nit ku baax di nuyu nag sama xarit. sama rakk saadi bu sëy di kenn ci man moo Issa Dieye ak ñi ñuy toogal ñoo ñooñu ñëpp ah ca eh, boutique Issa Dieye eh, war na ko du ma ko waxee war na xam na ne ci cosaan la bokk ndax ñi sant Dieye kenn mënta wax bawol te bàyyiwu leen ci. waaye di wax ne numéro téléphone bi ñu mën a duggee ci biir émission bi mooy 77 337 99 06. 77 337 99 06 ku ci woote rek dinañu jot ñu waxtaan ak yow ci question boo bëgg a posé wane ne tey dañuy soog a commencé rek di waxtaan di dugg ci réew yi Fatou Konté Saafonte lu ñu fi dikkaatee nag du soobee yàlla danañu jël objectif fu ñuy dugg ñu waxtaane ko Mamadou maa ngi lay wax léegi ne la bawal dëkk yu rëy dafee nekk doo waxee làmbaay gi capital bi doo ko jógee tuuti da nga dugg mexey làmbaay doo jógee mexey na tëll njuuju fa ngay dend ak yow ndondo la kodd ngoy mbuso ndiir makataasaar ndéem ceeb gi ma wax léegi nga wëlbatiku dugg baa may do gene tuuti da nga dugg ci segalem segalem mamadou luñ ci duggé da ngay ko lan xeexam jaar ndem du reuy bi nga xam ne koy wax ak sa doom sax wala nga diko teggu da nga nan ko duma dajeeg yow dina mel ni njaar ndéem diggante bambay séréer ak sinjaan ak segalem moy jaar ndem ci 1817 lañ ko xeex birima fatmu ci bako dajé ak amadi jor bor gaat gama di nuyu waa gaat gépp ñuy seetaan ci internet bi doo demee di nga dem dimaak mbaadaan ci la baabaak xalaleen seesu ndàngal ma kaba ngoxoj nga xam ne cir bu rëy lañu amoon dem ba reefan ak ndarab dëkk yu mag yooyu na nga tourné dem ci xar fa la ma saas daan dëkk dem ndëdéen gurgureen xool xotoran mbooyeen ah ndoojoor laañaar njaata ba na ngay dugg ndàng dugg mbayaar diggante njaareen ak kayal ak somb ak domb un ak domb deux ak pël la ma saas dëkk yooyu nga xam ne kenn mënta wax bawol waxuñu ko Mamadou di la wan ne réew mi nii rekk lañu ma mas a nekkee lu ñaaw mu su fee xew keroog ba nga xamee ne amadi Dior Amady Ngone Sobel ngoone Sobel mi ko jur mi nga war a tëng Ngone Sobel Sobel waalee ku jur wal sare jur ko sare njaajaan njaaj abor daar daan ah mi nga war a tëng wàcce kajoor ci di ci fu njóobu taawloo fa Amady Sobel Amadou Ngor Sobel ba mu nekkee gone toll ci juróom-ñetti at ñii ni toll ci fukki at dëcc fu ñoo ko bàyyam di fay ab galak mu ne waa bàyyi di lu mu doon mu ne ko doom lu ñu fi fekk rek te ñu koo dille mu ne ko fexeel ba Kajoor xam ma Bawol xam ma dinaa ko dindi du nooree mu noor Kajoor du nawetee mu nawet Bawol Amady Dior moom Amady Dior bor sa mboomay nag Amari Ngoone Sobel moo takku ànd ak ñi mu maaseel dem fu ñuy wax ndañtaali ñu ne waxe mag dem na ndañtaali bàgg war na mbaat ñu dem ca Bourba Jolof leelu fuli fàkk ca dànki ci 1549 dikk mbul yi di ko sargal naan ko cabral cabral ribbey jimbi yaa ko yellool kajoor jox ko bawol bawol jox ko kajoor mu jibal ko déccee fa njóogu bàyyam ne ko duma rey reebu yàpp ngay lekk mbuum Amari Ngoone Sobel mooma na nga ñëw ci lef mi ñu jox ko ndeera paaraar moom ca barjaag la ndeera paaraar géwél bi barjaag la ndeera paaraar géwél bi maa ñu jox ko ndeela àjjana moom àjjana ñoxor moom tey ñoxor njaay ku li mu am ca teeñ ca ndeela njaay jaafuñ ba ërëboon moo xëy ak laman yi ñii naaw ñii dee ñii génn bawal ñu di ko jabe xala lii lañ doon xeexee yow ñu lakk ko ci dëkk bu ñuy wax njabaxali nii ne njaabi kooku mooy teeñ ca ndeela njaay ñu déglu xalam waaw wax nga dëgg de numéro bi nag ku ci bëgg a dugg da ngay def 77 337 99 06 77 337 99 06. ah di nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan di bind ci commentaire yi ci anti internet bi ci Facebook Sadibou Seye Adama Samb nee na ma nga ñuy suivre depuis Ndangal ma. jërëjëf Samb kontaan nañu lool ndax kii wax ki ko déglu rek la bëgg kon kontaan nañu ah kii di ñu woo nag mooy suñu yaay muy ajaratu fat Seen Ka présidente conseil départemental bi nga xam ne bëgg démb rek nga def lu rafet ak say mbokk Bambey nekkoon ci sa loxo juróom ñaari at nga def lu bax ba yalla dogal nga jébulé ko ta amo fi sens interdit fo dugg rek man nga faa dugg tey waaw dugal lu am solo assemblée billahi assemblée yaa ngi dugal yu am solo man cosaan rek la ma def tam nga def ci sama émission mi ngi tàmbali léegi dëgg la daa ñi ngi nii direct ñi ngi ci télé bi direct di def ah ñi ngi Bambey TV ni Bambey TV lañu nek direct do duggé Bambey TV gis ñu ah, wa ci facebook do duggé facebook Bambey TV rek ak ñun waaw ah, yow wax ak yow dana yomb nak ko wax ci yow wax ajaratu ay dëmboj ah koko suñu mbokk madame doy ngone fal bu ci yasin lak seen coromaaro sa yaa wa gaan dëkk dëkk bii ñu nekk day sa baay ci def na fi lu rëy ci sa baay bokk ndey mun njaay faal caame soxna Diop ma ñu dénkoon la man rakki <laughs> lat seen coromaaro sa yaande waagaan bàyyam dënd ba fokk na daw ma chevalier baa ko mar tënkal nañ ko waraabe bàkk ko ci xeweri maali kuma njóogu yi ci njukki lat seen ak debbo faal nga bëgg sa bopp xam yaay kan bisimilah. waa kay Assane vraiment ñoo ngi nuyu euh, ñëpp di leen Bambey TV boobu vraiment kontaan nañ ci rappeler histoire bi parce que nit moom sa cosaan dafa am solo la. waaw kay valeur yi. wallaay sa cosaan boobu la dëgg dëgg la wallaay faal waaw waaw ngor ngor rek ngor ak jom ñii ñuy fàttaliku lépp di leen limeku rek ngor lañu fa wane ak jom te yow foofu nga nekk tey ci sage-femme d'État ca école ca hôpital ba ca yëmbal keroog bañ la fa fekkee kenn ku ne bëgg naa bokk ak yow waaye nag xam nga ne noonu rek nga toll ndax doomi ci yaasin la seen ak ndey jóom gisali di sëtu paraat ca waalo bee joma jóob rimb doo jàddeew yoon rek euh, faal jaaxal ñu macha allah macha allah waaw jërëjëf Fall jërëjëf kontaan nañu Fall kon mbokki auditeurs yi yeneen kon dégg rek 77 337 99 06 ah ñi ngi woon ci suñu mbokk yi ci commentaire bi Mamadou salaamaaleykum mbokk mi ko kan la sëñ Abdou Diagne borom Mbàkke Fall ah kontaan nañu de ku sant Fall de nu wooyee Assane lay moom mooy mburu mu ñu booleeg suukar Fall bisimila ñoo ngi delloo ziar ci Fatick wax nga dëgg faal ñoo ngi delloo ziar bu wér wallaay ji njaañee nag faaleen waaw damel tey lat sukaa bi ngoone jéey maa ngi ñëw ci moom ci kanam wa ah yow dañoo bokk maam ah yow dañoo bokk maam ndax mam faal ngoone jogoy jongo moomee kumba mbaa daan faal mi jur omar lay sama bàyyi moo ko foofa la bokk ceyaasine ko jur njaw mbataa ko jur ma faala ko jur farba faala ko jur waaw ma faal ngoone jogoy jongo damel teen lat sukaa bi ngoone jéey ñoo bokk menn maam de eh. wax nga dëgg jaañ dëgg la jaañ dëgg la wax nga de kër koddu ci am sama yu paañ ju baax jooju yaayu badu gàkkoog jay na fa lay lay démb rek laa tàqale koog moom ci am nit ku baax ku gore mhm. dëgg la dëgg la. wax nga dëgg. macha allah Diagne jërëjëf. jërëjëf Diagne. allo Baba Ibou. ah Badou Gàtt. tey rek sa kër laa xëy. ah, ah jaar ci ga ziar mère Anta. ndey njaay teeru ma ca kaw teral ma yow juuf la ma ko wax rekk ne ko jiga di wooñu waaye nag ah juuf li ci kanam moo dàq lépp sa li wolof ne sa doolay bàyyi nga juddoo te sa yaay réew mi xam na ko yow juuf ba ngay am ñetti téeméer nga ko dale di bokk nit ñi wax naa la ko keroog mm-hmm. dangaa jóge gaat ñëw Bambey kenn yabu la ma soo def loola nit xëy ba ba bisab tey bii ubi fi cyber di jàppale nit ñe booba photocopier jafé na lool yalla yobula ci ambassade arabie saoudite ngay dimbal nit ñi di leen jàppale ba bisab tay ji tale ko bayyi kenn kon nak yow juuf wax ci yow yom na waaw ku la ku la wax nak wax Ibrahima sar sa doomu nday waaw wax Cheikh sar sama doomi baye waye nak mënuma faté ndey jaay mi nga xamné suñu aaw bobu nga xamné sar mali maali jiga diw ñu bokk ko fekk si ci kër ga ta dara ñaawut yow badu ba ngay def lu baax yag na ko ma sa dopp ci sa oto balé nga ko lo am bokku nga kook doomu aadama wallaay juuf jërëjëf juuf wallaay juuf xam nga ko eh, mo war juuf damaa ñëw léegi ma ne sa kër tante Mbissine Mbaye ngi nii moo dend ak fii ñuy waxtaane sama xel dem ci moom teraanga teraanga ju ne teral na ma ko mbisaan Demba Yirim Siga moo ko Anta sa yaay bokk ndey ak Baye Kumba yaali jur nee naa ne keroog njoom mi ci njeejeeñ màkk mi ci njir waay dëbil ku yàlla ngaraaf ni Demba Mbay xaagaan bi addi ak ma yàlla ci lekk doo géexte mu rees yow gàddu doonu nag ku ko roy fay la sa wàll yaa ngi ca mbaye ne yaa ngi ci juufe ne yaa ngi waaw jërëjëf Diouf. kon dañ lay félicité. jërëjëf Diouf. ndax euh, vraiment lii dafa doon euh, école bu am solo. dëgg la. Euh, léegi benn auditrice bu ko doon wax. Mm-hmm. cosaan tey dañu ko soxla tax dañu war a delluwaat jikko. dëgg la. raar na fi lool lool lool man moo tax fi ne nii man bu ma sañoon. Mm-hmm. lépp lu may déglu rek lu nañu la yàlla samal. allahumma min min Diouf. mu ni maa nga. min euh, léegi suuf ma naan la dañ lay damoo yaay suñu fierté. dëgg la ndax lii dafa yombul lépp ñi dañoo war a gëstu jàng. wallaay Diouf. jàpp naa ne jàng la ca ëpp xam-xam du xam-xamu tubaab bi ñuy jàngi mm-hmm. wala man mii tey ëllëg xam-xamu asiatique yi ñuy jël mm-hmm. yaakaar naa ne si ñuy dund tey di fi yeewoo suñuy maam def fi ay jaloore mm-hmm. ah war nañ fee jàng lu bare bare bari moo tax wax dëgg yàlla boo ñu koy fàttali waaw waaw man damay lim léegi ay dëkk ba waaw ñu baree nga woote waaye kontaan nañ ci dégganteeg yow Diouf. di di euh, ñaanal waa Bambey TV. waaw jar nañoo ab sag la de. suñu xarit Modou Ndiaye. Modou Ndiaye day gone gu am gis-gis la ba mu koy commencé lu ne dégg na ko waaye mu jàpp rek te bàyyi. waaw. la dëgg la. Mm-hmm. na liggéey rek. Mm-hmm. li muy liggéeyal ak beewam incha allah bu yàlla du soobee dinañ ko saxal chaque ba heure bii du soobee yàlla. Ah, waaye waaye en tout <laughs> rabbi. ak <laughs> eh, kañ Diouf jërëjëf Diouf jërëjëf a mamadou dénga koko de aladji badou diouf waaye doo indee commentaire yi tuuti mu wàcc maa ngi gis gaa yi ci kaw di commentaire ah ndax euh, ka toog fa mu toog di la seetaan doyatu ko mu woote téléphone am wala mu bind jël connection am amaloo ko amal nga ko njukkal ci lu lan jërëjëf ah maa ngi jàkkaarloo am na ko tudd ah salaamaaleykum kooku la waay mbokk mi ah Diouf maam Thierno ñoo ngi sant bu wér Diouf allahumma amin Diouf waaw ah jërëjëf Diouf. Mm-hmm. delloo ñu suñuy jom delloo ñu suñuy valeur. Mm-hmm. ndax bu ñu déglu ku mel ni yow. Mm-hmm. am loo xam ne nañ ko mën dëgg la Diouf. na nga xam suñu tànk. dëgg la Diouf. vraiment di gërëm euh, waaw waaw mi ci làmbaay. waaw maa ko gis maa ngi ko gis bi wàcc waaw. waaw waaw moom sa xarit waaw ku ma te ma Euh, xam nga doomu aadama li dàq ci moom yëkk ndax xorom dañ koy cof lekk ko suukar ñu cof ko lekk ko ab sàcc rekk bañ ko ko yëg waaye awa seen damaa yëg li ma ko wax bëgg démb ne ko patriote nga doon ndax la na Njaay defoon ca Jolof moom nga def ndax teen bii mu jàpp lañu ci Bambey pédiatrie bii mu ci def loolu mooy nit nit da def ci sa dëkk du ëllëg yi nga mën a joxoñ ne def naa ci dëkk bi nàngam nee naa ko mënoon ngaa yor cinq millions def ko ci sa bopp waaye defoo ko kontaan nañu lool jërëjëf jërëjëf maam Thierno waaw dëgg la dëgg la wallaay Diouf. waaw na waaw incha ci kanam tuuti ñu suspendre demande. waaw. allo Pape Moustapha Mbaye sama rak. gis naa la yaa ngi insisté rek ci ligne bi. waaw waaw gis naa la gis naa la Mbaye gis naa la Mbaye sama rakk sama xarit. kenn koo xam ne ni nga mel ci man xam naa ko. waaw mbay kay Mbaye bisimilah. dama dama dama ne woon xale yëpp war nañ jëloo ci yow. jërëjëf Mbaye. yàlla xam na ko. jërëjëf. yaa yaa ngi yaa ngi def liggéey bu am am solo. jërëjëf Mbaye. parce que yaa ngi delloowaat kon yaa ngi doolewaat mag ñi yaa ngi leen di delloo ci li nga xam ne moom moo cosaan. jërëjëf. nee nañ ku fàtte sa démb rek wax dëgg fa yàlla gore dëgg la. waaw ah, mbay kontaan nañ bi nga jërëjëf Mbaye. jërëjëf Assane. kenn gënu la Mbaye. ah Mamadou ah vraiment dégg nga mbokk yi. fi ñu wax ak mbir mi ni mu leen ñore de woon ne daal Sénégal ah fàtte ñu ma waaye nag suñu mbokk yi ci commentaire yi ah yaa ngi gis am nañu deux cent nangam personnes gis naa léegi ku ñuy wax Ibrahima kan mu ngi noonu di commentaire moom Ngoone Fall Pape sàll sama mag sama xarit Pape sàll mii mooy boroom këram maam Fatou Ka ñu bokk gaat muy sama doomu bàjjen Amadou Fall di Doudou Fall bu monsieur Ibrahima Fall ak Yacine Fall dégg nga ko mu ne félicitation Assane wax nga dëgg sama grand yow sama diggante yow yàgg na mënuma leen a fay ndax Yacine sa yaay ak sa baay teraanga ju ma am ci àdduna tey jii ba nekk fonctionnaire ci seen loxo la jaar. Babacar Dione sama promotionnaire de classe ne eh, bravo mon cher Assane jërëjëf Sëñ Thierno Diouf mi woote léegi waaw kii di woote Mamadou. mooy Assane Badiane. <laughs> Assane kontaan nañ ci yow. jërëjëf Badiane. Eh, ñu ngi lay ñaanal yàlla wéral xam-xam bi. allahumma amin. yàggal la ci njaboot gi. dëgg la. njariñu Bambey képp nga njariñu Sénégal nga. dëgg la. parce que histoire bi ngay wax du Bambey rek ko moom mais Sénégal képp ko bokk. dëgg la. Eh, vraiment ñun waa Bambey dañ lay tiitaroo. dëgg la. Eh, di la ñaanal yàlla. dëgg la fi a àgg yàlla nga am solo parce que dafay delloo si doomu a xam fi mu bokk. amin amin Sakkour waaw. day tax mu am jom. la. day tax mu am fit. dëgg la. day tax mu am lu mu jombale neex yàlla. waaw. Euh, muy histoire bawal loo maîtriser la. la. jaraaf fi nekkoon xam nga leen. waaw danañ ci ñëw léegi dama doon loolu sax far nit ñi commencé téléphone bi. mais danañ ci ñëw léegi dugal leen ci xare yi ñamal leen ci tuuti. Mm-hmm. waaw noo gisee Bambey TV nag. Bambey TV kontaan naa ci ñoom trop. trop ah, waaw waaw wax dëgg Ndiaye gone la ne waaye am na jom. non ko am jom la man dama koy siiw te bokk naa ci ñi nga xamante ne bii soo waxee moom mu ne la. waaw. man ragalu mu ko soutenir ci dara parce que xam naa ne Bambey ak moom li yor. dëgg la. te bu ñu sañoon ni mu yëkkatee turu Bambey partout dans le monde. Euh, day gën a law gën a tasaare parce que ndamal Bambey la rek. wallaay. parce que fu nit toll ci àdduna yaa ngi dégg Bambey TV. dëgg la. souvent ma wax ko. ni mm-hmm. gën a sori tey jii. Mm-hmm. ñooñu ëpp information ci Bambey aujourd'hui. wallaay wallaay. da ngay nekk waxal jàmm dara xew fa yow nga nekk nekk Italie. njëkk koo de. waaw kon ñi nekk bitim réew te dëkk Bambey. waaw. te doon doomi Bambey walla ñuy déglu waa Bambey amul dara lu leen ump tey ji Bambey ndax Bambey TV. dëgg la. waaw loolu dañ ko koy sant di ko ko dëgg la. di ko wax ne metti na trop nag. dëgg la. ba léegi sax mi ngi mi ngi góorgóorlu rek. waaye boo gis rek baa neex ciy dëgg la dëgg la ba daal sàkku. defar lépp. incha allah rabbi amiin na yàlla def ci Bambey. amiin gën Fatim Thioro Ndiaye. ñu nekk falit ñëw ci kanam tuuti ci ñoom. bu soobee dina ñëw ci kanam ci ñoom léegi. ñëpp rek di wax nag comme Bambey TV dama ko dama ko waxee woon. waaw jërëjëf sama soxna yëpp laay sant waaye dama am soxna soo xamante ni vraiment dafa bëgg Bambey TV. te koy te ñaa ci dara chaque jour mi koy seetaan di déglu. dëgg la. muy Mami Diop nekk Allemagne souvent su ma duggee TV dama koy dëgg la. di wax ne rek Mamadou ñi ngi woon ci ñi commentaire bi. far suñu rakk jooju woote suñu doomi ndey Assane Badiane mu baax mi na Diouf jërëjëf dégg nañ la woote nga boole ko wax wax ju rafet jërëjëf yàlla na la yàlla fay Mouhamadou Lamine Gueye man mm, nañoo sore waaye duñ la fàtte benn yoon parce que ñett wolof dana tey yàqab ànd fàtte démb xeeb tey yàkkanti ëllëg fa nga dëkk ñëw naa fa ñëw nga fi ma dëkk ñu dee xarit nga bëgg ma lool jox ma ca sa bokk bëgg ma muy nga nekk tey ca Touba Mbéla ca département Birkilane ah yàlla dogaloon ngay jàngale fii ñu xaritoo jërëjëf guddil nga ma bëccëgal nga ma yàlla la yàlla fay yàlla laa lay baal li ciy topp mooy ah dañuy wax rekk ne ñi ngi tollu won ci bawol bi nga xamee nak wa réew mi nga xamné moy walo duma ko fat sen sa dana sedd Seydou ngeen sa dana sedd ndax kima jëm ci mom di jëkkëri ndey jaañ fay ak mam say ndjay bokk ndeyam jabba moy jigen ju man gor adertu ay ah baraga fa dan falu njurbel lañ ko daan sang it am nañu faloo njànge am nañu def seen capital njurbel am nañu def seen capital ndeer waaye la ko dara ca barak boo ba ci ma mbóoj Malick ay sa daaro mbóoj rek ngay sant kenn rek moo ko rax muy kuli mbàbba maram njaay mi ci kuli mbàbba te kuli mbàbba mbàbba mbóojo ko jur donc accident bi tax Lat Joor Ngoone Latir sant Jóob nekk damel ci Kajoor rax faale nii moo indi aussi barak kuli mbàbb sant Jóob rax barak yi ndax yaayam mbàbb mboojoo tax mu falu barak ak tey jéeg la la même chose moo tax Lat Joor it Ngoone Latir ndeyam a sant Faal moom it mu rax damel yi ci Kajoor loolu yit moo indi ca Jolof Tanor Fatim Kuréel muy sant Jeng rax njaayeen yi loolu nga xam ne lu am solo la ci histoire Sénégal jaaroon fi ah ñi sant Mbodj nag la ko dala ci Baraak Yirim Mbéjék Aram ak Baraak nataako ak Njaak lii la ñu hégémonie des Téjeek li ngeen Aram ba kër Pende Yirim ay sanaalew dañ koo jox Baraak Farakondaama Joos ba mu taawloo ca Baraak Yirim Mbéjék Aram Bakar ak ndikku Aram Bakar ak njaak aram bakkar ak naataako aram bakkar ak kondaama aram bakkar barak fara kondaama saa yi ñu jox ko barak naataako xari daaro jos ba doomi ndeyam mu am ci xure yaay aram bakkar ñu naan ko xiir ak lam caatu aram bakkar fekki dafa wóote barak njaak aram bakkar nag moo dëkkoo geet warax taj am ca kajj naataako geet ak dembaane geet ak sayer geet kantinantaago gépp moo di koo fanta am ci biriyoŋ booj fanta biriyoŋ ba mbóoj fanta lañ jox aram soxna mu am ca naataako aram soxna ma nga dee keroog bàngoy naataako aram soxna nag lañ jox isa ñang mu am ci faama gay mbóoj faama gay mbóoj nag lañ jox abdu xaali mbóoj mu am ci amadu mbóoj faama gay ñu dégg ko aminta saar mu am ca pap amadu mbóoj bokku ndeyam ndey mbóoj ak ajaratu ay dëmboo jigéen ju man góor ci sama bàjjen bi nga xam ne foo mu taxaw rek man leen itam teral na ko mbooj fara fekkiwu dara lu ñaaw lu ñaaw ginnaaw ma nee na barki démb du ma ne nit du naa lu ku dóor ma dóor la waaye dama naa la ku la nar dóor ma dóor ko yërëm mbañik aram bakkar ak njaag aram bakkar ak naataako aram bakkar ak korndaama aram bakkar aram bakkar pénda yërëm ay sa naa sa maame sangu nañu njurbel musique bi tëggal na la ndar junjing yi bàkk na la ndeer tabale yi rëkkal na la gànnaar ta sar sa yaay ngi ci liggey bu rëy bi kooku moy adertu ay dembo duma continuer ci mom sax ngay jël sama ta ndax nit do xere ci mom doy wax do juumee na ngeen ko bal ndax doy wax ci mom damay xet mamadou babakar jonn sama promotionnaire mi ngi ci commentaire ah wëlbatiku nag nee naa la léegi nit ñangi tok di déglu ñii ngi déglu ñii ngi ñuy woo ñii ngi ñuy bind ci internet bi te loolu rek mooy suñu succès ndax dañu toogoon fii soow ba ngoon jot di wax te kenn binduñu kenn woowuñu ah day wax mel ni la ñuy wax dafa neexut dafa amul xorom maa ngi toll woon ci Mouhamadou Lamine Gueye door ñëw ci ñi ci des ku déglu xalam tuuti waaw maa ngi tollu woon ci Mouhamadou sama jarbaat di doomi Diallo euh salit sama nijaay euh yéen ngi may siiwul sama jarbaat la maa ngi yaayam doom yepp doom wala la Ibrahima kan mune ma sha allah félicitations pour cette importante émission jërëjëf kan Assane badian wote na way bind Cheikh Fall sille mu ma sha allah borom Mbacke Fall khidma mune ma sha allah ma ngi nuyu wa bambay yepp gàpp sama dëkku maam la wax nga dëgg ma Fall Ngoné Jogoy Jog Ngoné Fall mii moo woote woon léegi di doomi Baye Thiassine la seen bokk ndeyam amit tamit ci agriculture Pape Kane ne jaaraama monsieur kii sama élève maa ko jàngal ba mu dem trois heures agriculture bi am na solo Yirim Mbodj mu ne une belle initiative pour Bambey TV félicitations Assane waa gañ Mbodj Fara di kontaan ci yéen ñëpp ngeen nekk ci internet bi di ñu bind Abdou Sey ni nga laaj numéro bi kee nee may naa la iPhone jërëjëf <laughs> Astako Diagne Astako Diagne mu ne félicitation Bambey TV nous saluons des initiatives comme cela Lay est une forte personnalité la bëggoon a bind Bambey nous suivons l'émission avec beaucoup avec beaucoup d'émotion wax nga dëgg seetam maam benn Paate Fari bi ñuy wax tamit sant Fall di nga am émission wax nga dégg Mamadou Fall Yande Dieng sa maam naqar la ñu bàyyi Abdou Sey jërëjëf Sey Abdou Sey 78 la jox wane numéro 442 44 44 Faat Seen bii ban Faat Seen la macha allah xam-xam bi rafet na xam nga ban Faat Seen la ci Faat Seen yi mais ñu ngi koy béggee lool ndax Faat Seen yi daa bëri am naa yaay ñetti yaay yu tudd Faat Seen Daouda Diouf sama rak doonoon candidat ci élection yi jàll ñu tuddee ko Alaaji Daouda Diouf maama moo njëkk aji Màkka ca gaat Ibrahima Kat Baye ma nekk président éleveur yi Jaariyatu Fabienne nga dëgg de Diouf asan lay bëgg suñu famille xam ñu bokk maîtrise parfaitement l'histoire jërëjëf Fabienne mi ngi la tuddee président Abdou Diouf a ko jur président Abdou Diouf Ndiaye Diouf ah mbaytaay sa bàjjan màggat Diouf càkk biram dama ma ci war xoox maa kumba sàmba démba ngoone Malick Alassane ndey mbay Mamadou mu ne macha allah namu naa la lool j'espère que tu te portes waaw alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax mbay waaw Mamadou ñu ñëw léegi ci ngor ak jom dañ na luy ngor ñu ne fat bañ fàtte demb ñàkk fàtte demb moy ngor mamadou asan lay lebal la lu bax nga dem tok ba yalla mën la gan wala jamono neex xamato kuy koka mamadou nit yor la ngay jang ci mom dem ba nek fonctionnaire dula gisate mo la wo wala dula woy nga ne ko dama occuper ba sa telephone ta ba muy miti nga nekkoon ca moom doo amee liibaru mburu bokkoog moom doo amee liibaru ceeb bokkoog moom as du ko def ñett day yàqab ànd wax naa ko léegi fàtte démb xeeb tey yàkkamti ëllëg ci noonu nag lay nuyoo kër gi nga xam ne fa laa nekkoon ci Bambey muy Ami Xaar sama yaay ak ki nga xam ne moom na ma yàlla njëkk a booleel ci Bambey muy ajaratu nday jaaj fay yaayu Abdou Diop ba may ànd ak moom nii laa toll jamonoy dox mu présenté ma sama ndey yooyu nga xam ne kenn ku ne bëgg leen layoo muy Kiné Diène ba Mamadou Ndiaye yaay Mass Ndiaye ajaratu Ayda Diouf ajaratu Kiné Diène ajaratu Yacine Fall mi nga xam ne mooy yëkkati décision moo Ibrahima Fall boroom këram teg ko sama loxo bi yaay duudu mi doon bind léegi ak Makhtar Fall nu ma leen a fàtte sans yaa ma seen sama yaay ji nga xam ne biram fatim penn mi ci njaar ndéem Ousmane seen baayam galon yaa ko ténj bokk ndeyam tafaak Cheikh Mbacke bokk baayam borom fat sa foot bi daaru salaam waaye nag maa ngi nuyu waa marché commerçant yi fa nekk yëpp xet jàpp nañ ci réew mi yàpp nañ ci Bambey di ci jiital Alaaji Seydou Nger Seex Mboob sama xarit Seex Seen waaye du nuyu kenn ci man koo xam ne fu ma nekk ma nga ci sama wet muy Pape Fall sama doomu bàjjen doomu Aliou Fall ak say caam dem ba gàtt di nuyu sama rekk Biram Lay Omar Gakou sama cousin ah di nuyu sama soxna di nuyu sama papa alaaji Omar lay di nuyu waa kër ga yëpp bàyyiwuma kenn Ibrahima Sarr fàttewuma la Xaadim Diop Mamadou daal di la wan ne la Sénégal ngor dafay yàgg jom dafay yàgg doo fàttali koo tuuti président Senghor en 1945 le Sénégal France ne leen dañuy am ñaari député ca palais Bourbon bu njëkk la ko dalee ca 1848 benn député rek lañ doon am Barthélemy Diran Valentin fi jiitu Kouchard ñëw la Fronde de et tant d'autres ba ci François Carpot en 1914 la ko Blaise Diagne remplacé de 1914 à 1934 20 ans nga la doon remplacé ko. génn àdduna 1941 en pleine deuxième guerre mondiale Lamine Gueye soog a ñëw bañ demee nag ba 1945 la constitution française ne léegi colonie bu ne di nga am ñaari député ci la Lamine Gueye ne ah man damaa représenté la les quatre communes mooy Dakar gore Rufisque Saint-Louis waaye gis naa un professeur agrégé de grammaire intellectuel de haut niveau kooku mooy Léopold Sédar Senghor jël ko ne ko kaay ñu dem ñu àndandoo liggéey ngir suñu réew génn Sénégal ci guto gi mu nekk ak loxo yi ñu nekk man na ko Senghor ànd ak moom ñu dem de 1945 politique ak ni mu demee 1946 47 ñu dem ba 48 ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka Senghor génn ci la SFIO section française de l'internationale ouvrière yi parti boppam ànd ak un jeune instituteur au de Mamadou Dia. Et Ibrahim Seydou Ndaw et tant d'autres ñu créé le BDS Bloc démocratique sénégalais en 1948 Et éclatant succès de son nouveau parti En 1951 Senghor gagné La ministre ah, de Abdoulaye ah addunaa de France le conseil général Senghor de doxal ànd Ibrahim Ibrahima Seydou Ndaw 1955 Senghor n'est que secrétaire d'État... au gouvernement homogène de Léopold d'Edgar Faure autant du Moïse jamonoy dox ñu dem ba 57 ñu grand conseil de l'AOF dañ koy créé. ñu daal di def premier gouvernement du Sénégal ñu ko am ci le 20 juin 1957 ici de la loi cadre tay ji Amadou makhtar mbaw rek mo ci dundati tay mu mën booba kan moo nekkoon gouverneur Pierre Lamy mu fi toogaloon France Mamadou Dia Ibrahima sar Amadou Babacar sar Sopar Edouard Diatta Abdoulaye Fofana Aline Sène Ibrahima Tall Abdou Karim Gaye dégg nga ah Obey Diop bu Bambey xam naa Obey da ngay dégg turam moo nekkoon ministre de l'information et de la communication jamonoy dox nag ñu dem ba cinquante huit sayrak sa déggoo ne damay def référendum ndax xam nañ ne tey nit ñu ñuul ñi attanu leen leen France faible na ndax guerre bi mu jógee diggante guerre froide ak guerre ba ca Indochine mënatuñu yilif kenn dañuy jox nit ñi ñu dem nag indépendance jot na fekk na sénégalais yi les élites africaines formées en Europe ñu ngi bind ci journaux yi bind ci roman roman yi ak di créer seeni association ngir nag bëgg Sénégal moom boppam jamonoy dox ñu dem ba cinquante neuf ñu def la fédération du Mali ba mille neuf cent soixante nag Sénégal am indépendance Senghor fàttali ko lan ne moo ko jëlee woon kon doon na réer ndax da ko fa bàyyi woon français yi utiliser ko mu nekk euh, professeur di jàngale Lamine indi ko ci réew mii nag ba mu toog ba mën a doon président de la république mu ne ko waaye Lamine tàllal naa la loxo kaay ñu ànd liggéey réew mi deuxième personnalité de la place laa la def maay président de la république ma mën a jëli président du conseil yow jox naa la assemblée nationale de 1960 ba keroog ci le 10 juin 1968 ci la Lamine Gueye génn aduna mu taxaw seede ko seede bu reuy ba ñu yóbbu ko tay ci cimetière yoy ci sumbe jël ñu diko wax bétoir mu taxaw àndandoo mbokam ya ñu jibal ko suñu borom xam nga ko faté fàttewu démb dé Senghor goré di wudé faté ko ne kan moy Lamine Gueye ndax moko andi woon ci réew mi gor gi Buuna na dégg nga ko alburee ko jur dafa tok France tan ko ne ko da nga ñëy def délégué général à l'assemblée à l'assemblée constituante d'Alger mu ne déedéet jël leen Ely Manel Fall à ma place góor gi Ely Manel dem ñibbisi dem gane ji ko Louga ñetti fan fekk fa ndongo Malick Coumba bi ñu doon woy léegi ci woy woowu mu ne ko buune dama lay gërëm mu ne ko lan mu ne ko dégool tànn la nga tànn ma à ta place ak privilège te nekk chauffeur tubaab doo waxee kenn du ko weddi prix mi mu la fay mu ne ko yéele damay fay bor mu ne ko ban bor ngay fay mu ne ko ñaar fukki naaru góor yi alburi sama waa bàyyi war dugg jolof bay bayaar ma ne ko du ngoy fàtt ma bunte sa bàyyi ko ko joxoon ko ko fàttaliku ne démb Mamadou di fàttaliku ne ngor ak jom ak fulla ak fayda bokk ndey ak baay mbokk yi ñu ngi leen di wax ne ku bëgg a dugg ci émission bi rek da ngay woote ci 77 337 99 06 ci Bambey TV ñu déglu xalam ba ci tuuti fàttaliku ñi ci internet bi liir commentaire wax nga dëgg awa seen jóoba ngoo ko xamal naa ne da nga dugg cëmm bi ci làmbaay dégg nga ko mu ne très bonne continuation a ah, fat seen wax nga dëgg fat seen ka yaay maam fatu fat seen ay dëmbooj moo ko bàyyi bi yaa ma sama yaay ji nga xam ne du ma gisee rek ma xam ne sama yaay gis na ma ah nee na Cheikh asan xam histoire bi macha allah yaa xam samay mbokk corofaal sama maam bu Ablaye Yacine kii Zanet Baye bàjjanam Pape Ibnou Ba la bàyyam tudd ma nga France wax na dëgg corofaal a jur bàyyam corofaal ak Kader Fall mi nekkoon ministre de l' éducation nationale Ablaye Yacine Diama ak Cheikh Yacine Diama ak Coro Yacine Diama ak Roqay Yacine Diama ak Fatou Yacine Diama Malicoumba Fatim Penda Biram Koura Dieye Ndiaye Malicoumba Tey Thiaw Ndiogou la Jaxu Gaynde Njàngoon Moustapha Karim Seck ñu ngi lay sant di la gërëm gis nañu ah Abdou Soubal Sarr sama rak moo ko ñoo bokk baay jërëjëf jërëjëf Sarr yow dooma ñaanalee mu dal ndax sëñ Malick Sarr sa maam wàlliwu kaamil la woon Baye Fall mu ne sama historien bi macha allah ah jërëjëf Baye Fall ñu ngi lay sant di la gërëm waaw ah. waaw Seydou man Assane ah sama xarit dugg na de gis nga kooku ci suuf bindee amigo content de toi muy Mouhamed Mamadou Mouhamed Ndiaye ba may wax ne ma gëmal lii ngay def yàgg na boobu damay soog a début di ko wax ñu bëri di ma reetaan teg ma dof waaye moom mii di Lam Njaay Mbay Jóob jur ko Mbay Jóob ak mu ndaw Njaay ak ñanga may ndoom jur leen danay lat kay re may jokkeel si mu mbaru Njaay bët siin wàll joojo garang ak lam dëbb joor fopp laa garang kor tap diri ma dumba wàll joojo ngoone kuram bisaan Njaay sàmba yaa xam Njaayam daaro neexa wàlleen jot Birima Ndiakhate ma code Ndombre Ndiaye bi Saay Ngalañ waaw 77 337 99 06 77 337 99 06 ci la ñuy mën a duggee ci émission bi. ah jareetu jërëjëf Mamadou ah doomi buur yëngu nañu tey ndax xam nañ lii rekk moo mën a yëngal nit ah, lii dafa baax sidit yi day yëngu waaye duma toog ci émission fàtte kenn ci man muy maam Ablaye Fall le trésorier général de ɓay bayar manen koddungoye mi cafjanɗala sukaɓe joojom mbenne yana wagama jekere puri séeri fat dieng mi ci ngor geeg jom ji bokk ndey num ndey mi ci taar bi fàtturey seen yaay ma saan Kumba Njallo ak Absa Kumba Njallo malikum maa ma waxut fàtte ma bàyyi baam ma la xaar yàlla xaar di faal loolu ni jooram bi dex rek càmmoñam bi du ko yëg teral na gor Yacine Fall la numéro Fall 77 337 99 06 maam Ablaye mi ci ngor geeg jom ji séeri ndey ndumbe ah, bàyyi bàyyi ndey ndumbe séeri fafaar fàtturey sa yaay masar ku mbañ yàlla waaye sëriñ sa bàyyi nga daaru salaam bokku ndey ngoone ñoro yaay xojo ba ay Amadou Fall Diouf sama jarbaat bi Fall dama wax ci émission ma ko jóg fàtte la mu ma sol yow foo jëm yóbbu ma loo xam wax ma ko léegi koo bàyyi ba ajaratu jàbb fay danaa dugg kayeen ba Mamadou ñooñu seen maam Serigne Babacar Ka du Bambey doonu nag tey ku ko rey fay ko wàllam daa bir yëfi boppam Mamadou sama yaay woote na allo allo sama yaay woote nag aji Yacine Fall alseeni mi ci céng bagar daado mi ci mbayeen giréen buri jëleen ak lat sàmb buri jëleen ak tasi buri jëleen yow Fall ñëwoo Bambey rek yaa Ibrahima Fall sa borom kër ne affectation ñu fi indi da ngeen ne ñoo wàcc seen bokk bokk ak waa Bambey Bambey bëgg leen Ibrahima Fall jàngal nit ñi éduquer leen former leen ba tey dëkk kër goo dugg ci Bambey tey tous ma bu fa wàccee rek wàlla ma nga ca yow it nga wàcce sa bokk bokk ak nit ñi kon yaay doo woote rek sama xol day seet Fall. amin amin Fall. amin Fall. jërëjëf doo ñaanee rek dana nangu neex shérif nga. ah sa yaay doon jox alaaji Abdou Aziz si da baax Malick sagaru jaam aram bonko soxna Njaay nguy biram ko jottam mbaala Njaay biram ko jottam yaay maxtaar ak salima ca France bokk ndeyam njaga yow Fall mënumaa wax ci yow ndax ni ma mel ci yow mënumaa seede ci yow waaye nguur xam na yàlla yàlla xam na nguur foo jëm yóbbu nga ma fa loo def ci sa waa kër boole na ma ca Fall yàlla rek laa lay baal di ñaanal Moussa Fall wér mu toog ci toog yàggu ñoo jiite ba ca kanam ak kanam ak kanam Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall. ah Mamadou kooku wootee wolof dana ku fàttali la fol sa folli dina yomb. moo tax tey jii du ma fonctionnaire de l'état ci loxo mo mi ci la jaare ndax it waccu wàccagul jox kenn directement dé lo gis dafa am kum koy jaarale moo tax nee ko yàgg ibrahima fall sa borom kër mënu ma a fàtte ci ëdd nit du faté dem aji yasin fall al seeni mi ci céng ak bakkar daal mi ci mbaye nek ginaaw raay di def lu baax rek waaye ma ngi ni sama pañ ko du jam kuma bëgg kuma jox ci lu wa këram wax rek ñu ne woo leen sama nijaay lañ jur Malick Gakou di nuyu nag sama rak Sall Bamba Fall di ko ñaanal nomination boobu ak Ndioba Dame bërki démb ah di nuyu nag le maire Assane Dia di ko ñaanal ndombo googu ñu ko takkal yàlla na ko jikk yàlla na woyof tooy ci moom di féliciter le maire sortant Gana Mbaye di ñaanal monsieur le président du conseil départemental Babacar Ndiaye moom it ndombo googu ñu ko takkal barki démb yàlla na ko jik di ñaanal ya rongom tay ji lañ ko doon tek ca ndangal mo momu ci commune ba yalla na ko jik te mu jig ñu tañu fekke lepp yalla yalla def jamm ci rew mi ndax jamm ci la xaj man ta ñak yag na ci rew mi isi fi wo amon na fi IDS amon na fi Union démocratique sénégalais BDS mi wax légui bloc démocratique sénégalais PSAS parti section d'action socialiste amon na ci rew mi IDS añoon na Union démocratique sénégalaise PDS am na IPS am na waaye ñëpp dañuy xëccoo rek kenn ku ne bëgg ngir réew mi dox du ñu demee nag ku ko yàlla jox rek ñu jox la loxo rek ànd ak yow ñu defar ndax lu kenn man ñaara ko ko dàq kon nag maa ngi sant ñëpp di kontaan ci émission bi ah kooku nag maam Fatou ah ca Sall bii sama jigéen jërëjëf waaw sa sa góor laa de lay. fàttewoo fàttewu ma dara it fàttewoo dara gis nga kii at mañ ma affecté kii dugg ma war a dem moom ma faatu mi damay gunge na li ñoo bokk ndey ak baay ànd nañ ma taxaw nga ay asan yaa ngi di nga ma wéetal de ku ma xam-xam moom tanaa nga du ma dee xutti du ko def benn te xutti yére bi jël maraakise boole ca alaaji Cheikh Ka baayam lañ doon fàttaliku barki démb rek borom million ya bokk ndeyam na koy kama yaay jàpp chef de quartier bu jigéen bépp kure yaay ndey saw tafsir Babacar ka saali bii gën laa tijjoo ma yaasin mu ci ndaari ma yaasin mu ci ndond ko du ngoy dem ak jimbi jaw ak ka jimbi jaw borom ku lakk bii jël fay wala nga waat ñaari yoon jërëjëf ay maa ngi nuyu jaañ fay sama yaay nuyu aji màgga sekk sama géwél boobu nga xam ne sagal na ma gaat sagal na ma bàmbay fu ma fekk xam maay kan nuyu nag Sadaga Fall nuyu sama chéri Fatim Aw Ablaye Sow ca garage Alaaji Mut Sow bàyyam ak Kumba Touré bàyyiwuma ak kenn ku ñuy seetaan ak ci Bambi TV te di commencement la rek lu mënta ñàkk tey am il faut que ñu tudd aw nit di wax ne léegi émission bi léegi mu jéegañ nag euh, léegi 9 jot ñaar fukki minutes rek a ci des di fàttali numéro bi 77 333.

lépp lañ ca jolof wax na dëgg koddu biigee kéwé biigee jógo biigee xuroje biigee ak wàll joojo biigee joojo biigee ma jogoom ma ca safarawu bëréew bët saalum ma koddu xuroje mboo njàng mi ci taaw yu baax yi dal di xol jëmee talaat saay sànjaan xañ buur si ni taaw ne taaw bu ne koy bu kër déewén ndax du ko kéwél nettalee mu ne Birima ñu yóbbu ko Madaaf Mat Xayaat ñu yóbbu ko Kër Jawaan daaw jàmbaar ñu yóbbu ko Mbulaxteen wuttu fa njéemeeg àll njéemeeg daal njéeme ñu yóbbu leen jékki ngay ma koddu kantuwaan ngay dëgg ñu yóbbu ko Ndinax Biram koddu ñu yóbbu ko Njombe Fall atuma ñu yóbbu ko Tëja. li ngeen koddu biigee moom nag moo indi génn lawaari bëri dañ ko jox jàmboor maa joojo moom ca ma Fall koddu ak joojo Fall koddu. ak korfal koddu jàmboor saay cëpp bi jën mu ne nañu ma sang ci xam ne mbégaani ci kawoon te delloo ma ndukumaan ñu delloo ko ndukumaan ko bër la bu ñuy wax taagu ñu ñaxana moom te ñaxana ndaw koddoog jogam ndaw koddu allo Astako. maa ngi sant Diagne. maa ngi lay nuyu a a baax. alhamdulilah. ma wax ne tey kontaan nañu bu baax ñu ngi suivre émission bi. wallaay Diagne Diagne. dëgg la Diagne. émission bi am solo dans la mesure où dina jàppale ndaw ñi. Mm-hmm. politique mémoriale. dëgg la. waaw ndax am yoo xamante ni mooy yokk ci oh. dëgg la. waaw euh, nañ ko ci émission bi. wallaay. émission yi mu a nekk donc ko rafet. Mm-hmm. baax di félicité aussi euh, waa Bambey TV dëgg la Diagne. maanaam yàlla gën naa taxaw bu baax a ko. bokk ko amiin. ñu yokk lépp. amiin amiin. kontaan nañ war ndax toujours dama koy wax. ab dëkk du fekkee ne da juddu fekk say maam nekk fa. dëgg def fa lu baax. wax fa lu baax. lu baax loole rek ca ngay mën a topp xëccoo ta ñàkk ndax kenn ku ne dangaa bëgg a defar waaye mën nañ ko am ci ngor am ko ci ëllëg ab yar ak teggin mbedd mu la neex nga jaar waxoo fa kenn lu xam loolu rek mooy àdduna gor te li nga wax léegi manel ko du ngoy na Binta sa maam keroog bi muy bàyyi nguur dafa dem kees ci commandant de cercle bi ne ko damay wuti yàlla mu ne ko góornóora la faloon na nga ndar kër bu ñëwee nga démissionné Talata jot gouverneur ñew mu démissioné bindab lettaram and ak mam benn sa mam mu wëlbati ko fekk serigne touba xomak and ak mam Cheikh Anta borom gawan xamna du benen yone yi duñ fi ñewé ba wara a dugg ci figure historique yi nekk Sénégal surtout Bawal nañ ko leeral ba mu dama la ci doon ñamal lool rek jaaj jere jere jere jërëjëf jaariyatu ta tey de sa yaram tàng na <laughs> li nga ñaan yàlla nañ ko yàlla boole sama doom jooju baax waaw dina wax ne Mamadou làmbaay ñi ngi fa xeex xeex bu ñuy wax njar njël biir ndax du ñuy wax tey ci commune bi am na date yu am importance yu fa xew 1874 la ñu xeex njël biir digganteem ak Mbooyeen 1875 la ñu xeex Samba diggante Lat Joor Ngoone Latiir booba dafa bëggoon a nekk damel mbul nekk teeñ bawal digganteem ak teeñ ci Yaasin Joor Galagana sone ba ca baañ taroon yi tàbbi ci koom date yu am importance 1902 la def élection ñun Carpo ak Blaise Diagne Carpo daal di koy gañe 1907 mbaaxaanam Lat Joor ci lañ ko génnee ci fonction de chef de canton yi tuba bi relevé ko 1911 dañ def recrutement des tirailleurs pour la conquête du Maroc l'Afrique du Nord xam nga ne Afrique du Nord Mamadou do fàtte ko tuuti laata ñuy am sen indépendance ci guerre lañ ko am Sénégal bobu colonie française la woon dafa joxé ay soldats ñu dem 1914 lañu ñu 1911 bobu la ñu def recrutement tirailleurs yi 1915 Albouri Ndiaye muy Albouri Calaw ca lañ ko def. burum ngeen salaw at mooma la peste bi am ci réew bi jàngoro pest boo ko laajee mag ñi dinañ ko wax 1917 nag ñu def recrutement massif des tirailleurs ak engagé volontairement doomu buur yeeg ku bëgg a dem ca guerre def engagement volontaire 1923 nag la ñu fal maam Cheikh Yacine Diama chef de canton ca Lambaye 1928 ñu dem Ndongo Malicoumba Kayre chef de canton mu remplacé ko ci at moomu 1928 ba legi ci lañu jëlé jëlee canton gu Fandène ca Kees ak jak gi xéré nek tay muy Pout ñu génne ko ci Bawol yobbu ko Thiès 1933 nak ci lañu def Lamine djeng def ko chef de canton mu xëccoo ko ak ku wax Thierno Dieng jamonoy dox 1939 canton gu Lambaye am problème ñu jël ko ñuy wax Séga Seck def ko chef de canton tay yi ñu wax délégation spéciale mu remplacer ka fa nekkoon ba mañu fal chef de canton 1948 40 ci la Cheikh Anta mbake borom gaban rek Cheikh mamba jooju nga xamne moy mooy dërëm ak gërëm genn aduna at moma nak lañ doon def bombardement de Dakar atam Dakar ya balé ya do 1942 mam Cheikh Anta mbake euh Serigne Massamba mbake muy rakk sëñ Bàmba ji nga xam ne lu sëñ Bàmba bind moo commence ci la wuyu ji suñu borom 1943 maam Thierno rakk sëñ Bàmba ji sosoon ci moom rek ndaamal daaru moo ko demaloon ndar moom la sëñ Bàmba dénkoon daaru te ba mu ñëwee laaju ko sëñ Fàllu ne ko Baay Thierno jàngal nañu ba mu ne ar yar nañu ba mu ne nër ba ñu nër sëñ Tuubaa ne ko moo Thierno doo fi demoon ma def si est que dinaa man lii xam na ne man na ko waaye gërëm na ko te desee la ko dara ko koy maam Cerno Baye a Awa Balla Moudou Awa Balla Fati Awa Balla Awa Balla ku ma ñuul maam Jeng warax mboy 1944 mutinerie des tirailleurs de Thiaroye xam nga Mamadou luy mutinerie des tirailleurs de Thiaroye mooy yi nga xam ne dañoo demoon ca guerre ba ñëw di casse seeni droit camp bi ci Thiaroye at mooma ca lañ leen bombardé nag soldat français yi rey leen moom la ñu mi ngi am ci 1944 1950 ci lañu ñu fal Alioune chef de canton ca Lambaye Alioune Fall ak Tanor a bokk ndey ak baay Fatou Mbodj jëleen jur dox ba 1956 tey ci wax naa la léegi ci la Lamine dem ak Senghor élection Senghor gañe ko at moomu it la Serigne Aliou Diouf Lambaye génn àdduna bàyyi sëñ Thierno Diouf Lambaye Serigne Aliou Diouf Lambaye duñ ko waxee xel dana dem ci Serigne Mor mbay xel dem ci kan sëñ mbay cergaan ñett ñooñu ñoo renversé woon ngóoro tanoor ca làmbaay fekk sëñ bàmba tuuba ñii leen njaareen waaye ñoo fekki woon sëñ tuuba ah jamonoy dox ba 1953 1956 ci lañu tabax école bee ca làmbaay tey école bee ca làmbaay école primaire ba 1956 la ko Aliou Fall tabax 1960 ñu génne canton Sénégal en indépendance nous avons sept raisons la raison du fleuve la raison de Thiès la raison de Durbel, la raison du Cap-Vert Dakar la raison Sine Saloum Sénégal oriental Casamance loolu de nga am en 1960 Quand on ñu remplacer remplacé par les chefs d'arrondissement 1964 nous avons créé le cercle créé département yi cercle 1966 Mamadou ñu créé ONCAP dégg nga mag ñi naan ONCAP directeur ONCAP ak ñu daan jaay gerte gi office national caisse agricole développement jamonoy def ba 1967 nag ci la ñu rey Demba Diop da nga ko dégg ca kees ci le 3 février 1987 nag la policiers yi gere bu rëy booba ci 13 avril ci lañ leen dàqe woon dàq bu rëy boobu loolu dafa am dat yoo xam dafa jaaroon ci réew mi ñu di ko fàttaliku di wax ci histoire rek la ñu ku bëgg a ci émission bi ndax mi ngi waaj rek juróom-ñetti minute rek ñu desee mën ngaa ci 77 337 99 06 77 337 99 06 di féliciter encore une fois de plus mère yi nga xam ne day fal nañ leen ci Sénégal gépp waaye di ñaanal ñi nga xam ne génn nañu ah jàmbaar lañu ku xëccoowut doo ñàkk waaye nag ñi nga xam ne fal nañ leen yàlla na yàlla jox kàttan ak doole ba fi ñu bëgg a yéegee commune yi ñuy bugg fa Mamadou di gërëm Bambey TV ak auditeurs yi ak auditrices yi ñu toog ci suñu kanam di ñu seetaan ak ñiy bind ak ñi nga xam ne ñi ngi ñuy woo di ñu ñaanal fu waaye nekk ñu ngi lay seetaan kii nag ma nga ba Dakar muy jaariyatu mi di bind di doomu nar waaye bawal gii la cosaanu ndax abla Yaasin Jamaay maamam di nuyu bàjjanam Zanet Ba gor su baax di nuyu Nafi Faalam Mbay Faal ak Cheikh Mamadou Bamba Faal moom Makhtar Faal di wax ne rek Cheikh Yaasin Jama abla yasin Jama coro yasin jama roqo yasin jama fatou yasin jama malikum ba fatim pende birem kure jaay cheikh jur sene faal mu jur may sa turam ma nga demoon may sa jojo ak Saalum Touré ñooñu Birane Touré seen baay boo ko bàyyi Mbaye Touré mi ci inspection bi waaye nag bàjjen Gagne Siri seen yaay Gagne Siri ak Ablaye ñoo leen bokk ndey ak baay noonu la demee kon Mamadou ñu déglu xalam tuuti rek soog a tàggoo ak mbokk yi mamadou ma nga nuyu nak sama bok di sama xarit di borom photo bi ci téléphone bi ñuy woy ah di sa soxna nak di Kodou fal setam la ma saas ma coro fay saas boobu nga xamne ne suka bi gite gite law bi kor seen ma ndo bur jëy borom lakki ndeer te joxaw do làkke lak ak taaya sambu mi ci gunjuleeg maawa mi ci gànnaar ma kodd mi ci ngondali ci njoom xam nga ne duma wax fàtte ko waye di nuyu nak sama rak sama xarit woote na léegi ci téléphone bi jotuma muy Papa Fall mi ma doon wax léegi ah nekk ca marché Bambey di commerçant di sama doomi bàjjal say caam nga xam ne fu ma nekk rek ñu ci sama wet wetti li na ma bokk ndeyam xaadim ak Samba ak Mbay Fall ponkal ma bëgg ceeb boobu nga xam ne neexul suural waaye nag di nuyu waa gaat gépp Omar Gakou sama cousin Jib Aan sama mag Maajoor Lay sama mag ju baax jooju nga xam ne kenn mënu koo fay nungul nañu lépp Goré Jullit di nuyu Samba Ndiaye Cheikh Sarr Khadim Diop commerçant di nuyu professeurs yi ci lycée bu gaat ba may liggéeyee mënuma leen a fàtte ah alaaji ko ma ju sekk mu ne Assane petit revenu sur les différents maires de Bambey merci danaa ci ñëw sekk ngoy bu rek sadi jàmbaay sa yaay dafa rek heure bi jot na 4 minutes ñu dese te maa ngi tàggutoo alaaji ma siré sekk sa baay la ñu fii yóbbu ko Linguère docteur ba bokk ndeyam Alboury Seck càmmañal Ayda yaaye Habib Sy ancien ministre directeur de cabinet Ablaye Wade alaaji Kumba bi bokk ndeyam Ablaye magistrat bi ak nday na koy sama jarbaat bi ma féetale jàpp fay seen yaay premier chef de quartier bu jigéen ci Bambey keroog ba ko ay dem boo jëfal le 18 octobre 2009 maa ngi taxaw préfet taxaw ay bokkam taxaw yëpp mu ma asan am micro mu ko jadd di solo ma dara bokk nday nday saw jigéen ju man góor gi nogoy kama faat si biram saasum penn njaay kura faat si sa sun pen njaay mar sun ma ñu mar mboore ci law ñu ci ras ma ngi nuy sama goro yi ca kër ga kumba ndir séeri ablay ak japp juuf séeri alaaji kumba mi nga xam ne dama yekal ginar du ko dag non la koy tek waye lepp rek la sama mag yu bax di fay biram ba nga ma jàppee ba tey bàyyi woo ma semu fay bàyyi may nijaay alaaji Cheikh Mbacke Gaynde Fatma gànka la ma nu ma xura jëma ñu booleeg bakkan keroog gi la te ngaraaf te tëgg ma nga neex jaamu njaay Mamadou nag wolof nee na leen neex na waaye di jiw njaabam gileem xajut ci rondal numéro bi jàpp 77 337 99 06 77 337 99 06 ñu xaar sama mag jooju Amadou foog naa ne tey de ah yi yëngatu nañu de lii avant première rek la ñu ngi leen di wax ne nag fu ci tolluwaay nekk rek na nga ñu ñaanal fan gudd ak wér gu yaram ñaanal waa Bambey TV. jàppale leen lu ci waay man ci jàppale leen na ngeen leen leen jàppale waaw jàmba allo Ngoone Fatma ay kant fay biram kante ñu laan jaay ma jéngu jaareex la dem naag saa lingeer bëgg naag jëfi maam sët yaa koy fay jërëjëf fay amin amin amin amin fay jërëjëf fay jàbba yow mënatuma laa fay ci adduna dëgg la fay allahumma amin fay amin fay amiin fay amiin fay. Hmm. dëgg la. Ah, yow fay ku la xam dina baax ndax ku roy ci yow dina baax ndax jàmba da ngaa tëdd rek ku jóg eh, nga def ko ni sa bopp amoo xel ñaar doo wax lu bon doo ko fekkee samay toog say bokk nga yebal ma ci say bokk ma dem teewal la fa. waaye dumay may yéegee sa daraja laa yóbbu du ma demee dañ may teg ca kaw mbokk moo am rek jëflante nga ak moom lu rafet waaw yow kenn mënu laa fay lay fay jërë da lay fay <laughs> amin wallaay fay jërëjëf yàlla boole ñu ko yow yàlla nga fekke lépp jërëjëf jërëjëf jërëjëf de lay fay wallaay fay <laughs> kontaan nañu lool kontaan nañu fay jërëjëf wallaay ah jàmbaar lañu de waa Bambey TV de jàmbaar lañu wax dëgg waaw amin amin fay amin fay amin fay jërëjëf jërëjëf fay waaw di wax ne kooku doon woote nag mooy ajaratu jàbb fay premier chef de quartier bu jigéen Mamadou di gërëm ñëpp waaye am naa sama mag yoo xam ne muy madame Kébé ajaratu Cekka Njaay fidèle inspect eh, fidèle inspectateur tris, bu Bambey TV di nit ko am fulla ko am fayda man lo baax lool ci mbokkam mën a fekk loo mu defar ko te kenn du ko yëg yaayu Abdou Kébé kooku Abdou Ndiaye moral porom baayam keroog ba mu demee ñëpp a jooy Maguette Ndiaye bàjjanam ma ko yar mu judd ci Bambey nag liggéey fi jëf fi def fi lu rafet di dimbal doom aadama yi te kenn du ko yëg léegi-léeg nga doog ñu ne cekka def na nàngam ma ñëw ne ko defal nga di nàngam mu ne ma lu tax mu wax la ko bëgguma ci woon loolu yàlla rek a tax may def kooku mu ngi def te yàlla tax njaay cekka maa ngi lay nuyu bu baax sama mag ji nga ne nee na sponsor sponsor dina ñëw dinaa woo yónnee fépp soobee yàlla danañu ko xam di nuyu nag kenn ci man xadi mbay sall madam jack yalla yalla yàlla fëgg boppam ci cëram di nuyu nag wa marché ba mbay gep bayuma kenn Mamadou di nuyu wa gendarmerie ah alaaji Kumba day xamatuma nu may def waye dal allo alaaji Kumba oh, ak ay sek ngoy lat bu rek sadi ziar ziar nan la bu baax jogi contane bu baax si émission bi jeuf Seydou jabba bàyyi Ablaye mu ndaw <laughs> Eh, bokk bokk ndeyam Amed Diagne Diouf <laughs> sama waa jooju nga xam ne ulay yaayam bàyyi lu ma dara daal ulay ba maa koy nuyu ma dem boj de passage waaw ah, loolu moo war loolu moo war kenn mënu dara Allah allahumma amin amin wér amin sénégal ñëpp bokk yu rek ka fi bokk rek di nga gis ak yow sa mi ngi ci ni hmm. aram aram faal sa maam moo jur maa korka faala ku jur ñi nga dem jolof aram amaram faal mooma nag moo jur ma jëm aram faal mu jur mbiram ma siga sekk mu jur ma si sekk sa baay kon xam nga ne Sénégal ñépp a bokk jàpp sa yaay tey du ñu ko ne fay walbati ku ne na koy yaayam ka walbati ku ne fat si biram saasum penn njaay loo xamut biram saasum si seen maam tey fee mel naa ca ndakaaru nekk moo bindoon lettre ba gouverneur colonel ne ba peste ba amee dem ca seedal Hadji Malick ànd ak biram wali bàyyam ajaratu aram jéen ak instituteur bu ñuy wax Iba Coy alaaji Maalik leen tudde leen ko Medinatul Munawwar ga ca màkka ndax yonante bi ba mu jegee màkka dafa dem def Medina Medina gën a daal mooy Medina gee keroog biram saa sun penn njaay bi ci bettuwaar bi ci sumbi juun bi càmmeñal eh, di bu <laughs> waaw fat si biram saa sun aminte si Marème Sy Adama Sy Mbëggu Sy beneen saa su kenn jaay bi ci météo bi ci Dakar man saa su Ndiaye ma ne Mar Ngor jërëjëf jërëjëf jërëjëf allahumma amiin amiin amiin amiin Seck Mamadou Ndiaye nit ku baax mais Mbaye Baas Mamadou d'accord Seck d'accord mbay eh, baas ni koy nuyu diko ko di nuyu nak sama grand bi bind légui professeur russe bi abdou aziz barham diouf depuis thiès di professeur lis li russe te lycée de gat mang koy nuyu aussi di kontaan ci mom di nuyu madame oulay madame mbooj oulay ba diko sante diko di gërëm di nuyu staff bi and ak ay dëmbooj ñëpp du leen bëggé leen dama fay france jojju kenn mënu leen lim waye duma ma tuddee ay dëmbooj rek tudd naa jigen jigéen ju man góor baraag yaakaaram bakar mi ngi fàtt ci moom jaanjaar keroog bataaxal la demee ma njaay kaar jamaa may fàttewuma ko ak ñu ñu bokkal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba àllarba bii di ñëw di neexee yàlla yàlla yàlla doole jàmm ci réew mi ñu ngi sàkku ñaan ci yéen yàlla yàlla musal ci mu ndog ak balaa kii ku naqar